maa ngi lay remercier ci kàddu yi xam nga yow dama laa bëgg du man kese maa la bëgg de Sénégal ñoo la bëgg ndax dangay ngay ambiance ah di fair play di bàyyi muy sedd xam nga fi may waxee comprendre nga ndaanaan moo koy def te danga di ndaanaan da ngay yéeg bégal sénégalais yi fecc fecc lu neex tëgg tëgg lu neex ñëpp kontaan jaajëfatee rek lañ lay wax tey loo indi ci bisiwaale bi. loolu mooy àdduna gis nga àdduna Euh, daanaa dégg Mouhamadul Fadal sama sëriñ ba yàlla na yàlla yokk ak leeram taas na ci barkeem naan la kudul bu nit dem bu nit di dem fu muy bëggee ak fu ñu ko dul bëggale àdduna nag dafa yàggul te lépp rek loo ciy def rek euh, képp benn doomu aadama buy bégal fukki euh, benn nit bu kontaan ak xolam sedd moo gën benn doomu aadama buy fitnaal téeméeri nit barke Seydina Muhammad waali nag bu ñu ànd ak moom di liggéey yaa ngi dugg gi fekk fii suñu papa nga intéressé ko noonu mu wax ak yow kii toog kii toog nii tey jii euh, nijaay la ci waali papa la ci waali lépp la ci waali barke Seydina Muhammad kon day waali ñun ñëpp rek boo xaree suñu xol bii bii waali nga ci fekk moo tax bu ñu yéegee si seen bi moom bu yéegee rek ñun accat moom bu nee bëri rek ñu topp nañ ko maari asin may sa biige may sa biige maar aji naar ma ca doon njël ka des ma ca làmbaay lekkul dara bañu amee lu ñu àq de barke Seydina Muhammad ñu dara dara deseluñu ko lépp lu ñu war suñu digganteek moom rek def na ko yàlla na yàlla yokk ak leeram bàyyi koog jabaram ju baax ji nag. di ñaanal day ji seex di ñaanal soxna nag ci at mii. ak jëkkëram ju baax ji soxna ay dara damaa dem këram. bu ma ñëwee këram fekk ko mu toog bala moo defar añ bi waali guddi lay añ ñoom maa ñoom ñun yam ñun guddi rek la ñuy lekk. ba nit ñi dañuy toog mais bala moo teg añ bi bala waale day toog mais moom bala moo teg añ bi nit ñi ñëw su tegee añ bi ci table ji moom du dugal loxoom waale du mën a dugal loxoom gars yi séq bool bi moom mu taxaw di yóotu bool bi barke Seydina Muhammad wallahi azim waxuma ko ngir jabaru patron déedéet damay wax ci sama digganteeg yàlla ak moom ak def defkatu baax bi mu doon ma xool xool xool xool xool xool ma ne jigéen ji baax jigéen du jigéen bu siisee rek baaxul ndax jigéen a moom kër kon nag soxna maa ngi lay ñaan ak sa jëkkër ji lépp loo am ak moom yàlla na ci yàlla def jàmm. ndax damaa bëgg papa coon ah hmm. hmm. mu daan fecc lu neex boobu yow yow ñu mu xaalimee ñi laa leen dàq fecc yu sa fet day civilisé dangay def oh, costume def takk gu rëy daal lii di biriyee mu teg la seeni i acum loolu laa namm. bi lay laal nga bi coon sekk. dëgg la. lépp lii lépp moo ko waral lii rek lañ doon ñaan yàlla nag waaw parce que maanaam ginaar ginaar rek lay jur waaye dafa am loo xam ne dafa am ci zone tey loolu la yàlla fay muy doomam ji amul lu ne gaañ de waaye boo amee waale rek am na lu ne gaañ ndax la mu waroon am yëpp tey gi suñu borom ci lu wax la loxo waale la ko jaarale kooku doolu nag dellu doon sama raq dellu doon sama doom dellu doon sama xarit dellu doon sama complice ndax maanaam yare yar dafa am solo daal ci doomu aadama dama ko yar xam ko xam mooy kan daan tëdd mu tëdd sama ginnaaw te wallahi azim lii rek la mun a am tey dogguma la sax dangaa ñàkk ki ñaan ndax ñàkk ki ñaan weesuwul nga daan feccal baayam tey doom juddu nga yar ko tete ko ba mu dugg ci musique tey bu la neexoon nga ni nijaayam laa damay toog te force da lay defal du dëgg. dëgg la bu la neexoon nga ni tey duma ko feccal ndax doom la ci man. dëgg la damaa feccal baayam mais defoo ko loolooy ñàkk ki ñaan. parce que tax man damaa fier ci Faramareen man. wane nga ko man muy Thione Seck Mapenda Seck Assane Ndiaye Ousmane Seck Kéba ba ci ma Ndiaye mi ba ci Bambali ku ci nekk rek dama la dafa am fu ma war a mën a jaar ak man jarbaat laa ci biir man Thione Seck sama nijaay la Assane sama nijaay la ma Mapenda sama nijaay la Kéba sama nijaay la Ousmane Seck sama nijaay la yaa ngi dégg mais dafa am loo xam ne yàlla du ko def sama diggante ak ñoom mu doon loo xam ne cofeel la maanaam man dama leen bëgg-bëgg boo xam ne du ma leen weccoo parce que maanaam seen seen maanaam seen bëgg ma leen bëgg mënu ma ca wax lu bëri sax parce que bu ma ci waxee lu bari rek day am neneen nu mu demee man Thione Seck moo ma yar Thione Seck sama complice su yaay la woon yàlla dem tey jii sama yaay dafa teel a gaa teel teel a génn àdduna nag mais saa yu ma gisee conseil rek mel na ni moom laa taxawal tey jii yàlla daf may ànd ak moom tukki di dem fu ne ci àdduna ba tey jii man ñoo nekk ak doomam doomam seetaanu ma bu ma feebaree du ma la nëbb de moo may faj bu ma soxlaa moo may moo may jox sama dépense kër ginnaaw yàlla yonent bi moom la est-ce que yaa ngi dégg maanaam mooy li nga wax sànq xaali rek da ni ko yow. aduna bi ñëpp la bëgg ku nekk ak wàll il faut adduna bi ñëpp bëgg la parce que kooku Baay Faal la maanaam moom xamewul lu saf suukar rek lu saf xorom li nekk loo fekk ci moom rek yaa ko moom moom noonu lay dundee àdduna moo tax bésam nii rek lay mën a demee bu ñëwee Gàmbi fépp fu ñu mënti dem nag moom bésam nii rek lay mën a dem parce que maanaam gis nga yàlla bu nee waaw ku yóbbu rek ne waaw ku newul waaw nag da ngay sa bopp dafa xew si jamono sax nag ku yóbbu bëgg ko. mais biddéew la boo xam ne suñu borom moo ko moo nu moo nu ko moo ko moo ko génneel. yaa ngi dégg adduna bi ñëpp bëgg ko ba pare ñëpp soxla ko soxna si rek la mënoon am muy soxna ay dara kooku yonentu yooyu maamam moom waali jabaram rek la am moom maanaam suñu borom da koo seppil koo xam ne koo koy soxnaam soxna doo dox ci mbedd ba gis ko muy tambaambalu amul xarit xam nga koy xaritam waale ak ay doomam. yéwén na ci joxe lekk yéwén na ci joxe naan yéwén na ci génn ci kalpeem joxe te kenn du ko xam Wally man maa ko yar sama kanam la juddoo ñoom Mouhamed sama kanam lañ juddoo mais ki ne Diouf tey jii lii mu am ni ki doomam ji moom moo ko liggéey ndax daf ko fa daf ko fa xaar ma fekkee nag lu bëree bëri bëri bëri bëri bëri yàlla di rek la ko mën a fayee waaye jaaga maa ngi lay wax ni sama yaay jooju barki Seydina Mouhamed yow doom yi rek nga mën a jur yow say doom rek nga mën a jur parce que xam nga tax da nga koo liggéey tarbi ji ko ci seen baay nekk ko seen baay di ki dégg lu ne di ci gis lu ne yàlla doom ji rek la nu mënoon faye maanaam gisagoo sax dara de lii lancement la rek jaagu jub séeri bàllaago déggoo ñëwee la Box TV. Equivox Equivox. ay man sama ñii kenn dégg ay man fan laa Equivox. Equivox. waaw waaw ñoom fu ñu boxee rek. vox eh. ay box rek. fu ñu boxee dañuy daan. kon jeex na. fu ñu boxee rek. kon ñoom man ñëpp. yéen a mën ñëpp yéen a fi ne. kon leer na. ah ah muy chef d'orchestre Papis Papis nuyu nañ la. ñu ngi leen di fay baax Equivox TV. mais Papis ci loo nekk. je vais très bien nelaw nelaw récupérer bu baax waaw. tey loo pareel waa Gambie. Euh, Gambie suñu public la. ñoom en général dafa am nu seen spectacle di demee. un gala très sobre gala boo xam ne ndànk-ndànk la doucement ak un show beaucoup plus libéré donc on a réfléchi ci répertoire bi def lu gën a décontracté par rapport à hier ok waaw waaw lu gën a décontracté laay wane mooy par rapport ak ñoom seen concept bu dee ñun la Sénégal am na nu ñuy euh, doxalee soirée en trois mais ñoom aussi premier jour bi c'est des trucs relax c'est un peu moins c'est des gens assis à table bi c'est différent plutôt relax soo ko xoolee ci public bi di nga gis ne que y a même pas de chaise donc euh, show la donc c'est un beaucoup plus bel comme euh, naka laa la koy mën a méngoleel rek mooy comme grand théâtre Sénégal rek comme 31 décembre Sénégal mais en fait dañu remarqué des fois Wally bu demee comme ça mbalax bi biy dóor euh, au niveau Sénégal da koy wàññi bon da ngeen di xool au niveau public bi ngeen di am ngeen soigner seen musique wala waaw xam nga booy def une musique festive comme suñu bos mm-hmm. Euh, le public joue un rôle très important au Sénégal mhm. euh, les gens ils maîtrisent le répertoire mun naa ne sax euh, boo koy xool chronologie morceau yi ni ñuy teglantee sax public bi da koy xam boo génnee exemple dem nañu Ngaay bërka démb c'est un autre répertoire en fonction parce que il faut nga leen ngeen nga leen à être dans l'ambiance au fur à mesure doo mën a tëggal li ngay tëgg vogue wala nga koy tëgg penc mi donc loolu moom mooy différence bi boo ñëwee fi aussi ñoom am nañ seen morceau yoo xam ne yii bon ñun euh, musicalement on dañu xaw am l'oreille par rapport à liñ xewal liñ préféré voilà donc en fonction de ça on modifie donc toujours le répertoire mais yéen dafa mel ne gàmme dañ leen yéen lu ñu àttanul de démb gars yi dañ fee wàcc seen i dàll ñiy tere ne seen i robb <laughs> comme comme je dis publicu Gambie euh, est l'un des meilleurs publics de Wali parce que le même public qu'on trouve en France suñu xewlee Angleterre barke Demba Ndiaye doom de Paris bi ils étaient là ce public là donc euh, dañu bokk si suñu calcul waaw bu ñu ba si fent plusieurs fois Wali woy na Euh, won la wone attachement à à la Gambie ak à ce public là donc boo ñëwee da nga leen defal li ñu li ñu bëgg parce que euh, euh, bokkuñu si de dañoo moom ñoom dañu am une part franche donc loolu la. mais des fois ñu gis Wally teg tabouret ah trois personnes quatre defal ñu acoustique léegi ba nit ñi tàmm ko ci ñoom bëgg ko léegi acoustique bi des fois day ñëw bàyyi dugalaat mbalax bi te acoustique bi dafa neex daal macha allah. Euh, li ma la wax la sànq rek euh, gis na tout est question de concept euh, je crois que su ma jëlee exemple euh, Sénégal dañu am un public très demandeur et très exigeant boo xam ne bi boo focaliser woo ñoom rek doo travailler autre chose donc on change les concepts selon li ma la wax rek public bi y a des gens qui veulent écouter Wally pas danser y a des gens qui aiment bien le rythme mais bu fecc jotee ils aiment euh, s'asseoir apprécier la musique déglu woy déglu les mélodies déglu donc public boobu la ñuy jéem a satisfaire loolooy waral des fois par rapport à certaines émissions et c'est un truc on pas encore totalement lancé là-dessus euh, dañ ko def pas à pas pour euh, recenser le nombre de personnes que ça va accrocher et en fonction de ça incha allah y aura des spectacles yoo xam ne ce sera typiquement ça voilà. mais 31 décembre Wally di dem foofu moom këram la miin na ko lan ngeen di préparer waa Sénégal. bon euh, xam nga on a un problème on a deux dates majeures désormais sur l'année Grand Théâtre mooy l'anniversaire et euh, le bal du du 31 décembre. un bal nag mënoo ko jël nga nga modifier ko c'est un truc comme ni ma lay wax ni c'est un truc laisser aller un truc boo xam ne veneto la ñuy wax. Euh, on fait la fête, on, euh, on, on souhaite minuit ensemble, on se souhaite le meilleur vœu et c'est une ambiance. Par contre, l'anniversaire, c'est différent. C'est un concept à chaque fois, c'est des thèmes, tu vois, c'est des choses qu'on essaie de faire passer par rapport ak euh, public sénégalais bi ak diaspora bi yëpp laay wax sax. ñu ngi lay ñu ngi lay remercier bu baax lan ngay wax Equivox TV ñu ñëw accompagner leen fii ci Gambie pendant trois jours yi ngeen fi def. Euh, ñu couvrir évén couvrir événement bi bàyyiwuñu dara lan nga ñuy wax. ñun on a deux choses le public qui nous suit et qui nous soutient ak la presse comme vous donc euh, je m'en vais vous remercier vous dire sincèrement que le travail que vous faites euh, il est très très important et c'est quelque chose qu'on prend beaucoup à cœur parce que euh, aujourd'hui média yi bari nañ je crois que média bi donc média bi focaliser wu si nga am événement bu toll nii mu ñëw couvrir ko mettre ko en valeur je crois que c'est très important que ñu delloo leen njukkal ko ñu remercier leen euh, accompagnement bi te nag ngeen ñaanal ñu ñun aussi liggéey bi ñu def ñu avancer bu ko defee non dates majeures incha allah Equivox ne peut pas parce que équi qui dit Equivox dit équiva équivalence dit équi voilà beaucoup de choses donc donc euh, yàlla bàyyi ñu ensemble euh, te ñuy gën a avancer ndoo ensemble. ba pare di wax ne qu'on ait une bonne coordination exemple avant déplacement majeur yu toll nii nga xam ne. Hors du Sénégal, on règle tout. Parce que euh euh, euh, euh, euh, au Sénégal, on règle tout. Hors du Sénégal, c'est un peu difficile. Donc, si nous avons une coordination, une information, un exemple, Equivox, je crois qu'au moment de quitter ça, on peut boler si plan. bi Parce que dès que vous êtes on peut faire des habitudes. Les filles, la presse n'est pas trop développé comme au Sénégal, euh, j'ai beau le dire. Donc, si nous avons a jox la bi des fois le promoteur ne peut ne pas le savoir. Mhm. donc looloo indi couac yooyu mel noonu on s'en excuse beaucoup. Mhm. et euh, beneen yoon bu amate qu'on ait une bonne coordination dès que les publicités se lancent on dise ah Equivox d'accord on a batch de communication ñu préparer lépp nga xam ne tout sera fluide incha allah. teg naa ko de. waaw parce que vous méritez ça aussi vu le travail que vous faites en trois jours moi je dis que vous méritez ça parce que ñun tamit euh, lii lañ soxla. ku fësal loolu lañ soxla daal. je te remercie merci beaucoup. Euh, ci temps bi ma may explication bi téléspectateurs yi gën a comprendre lan mooy rôle lu Papis biir euh, euh, Ramdan ñu xam yow yaay kan c'est très important aussi parce que dañuy gis personalité bu cool bu calme en fait il joue un rôle très important biir Ramdan ñu ngi koy remercier bu baax di ko wax jaajëf yàlla na loxoy wér. Euh, idée gën a ñëw. affaire yi gën a yaatu. Faramareen gi yëpp xacc ci. ak pa Faramareen yeeg maire Faramareen yi. incha allah pour waa Sénégal yëpp ak pour ak Gambie. ak àdduna bi yëpp. waaw waaw Faramareen daal Wally Seck daal Wally Seck ñëpp la. donc euh, on est ouvert à tout te voilà sa am na solo trop maa ngi naan amin voilà voilà